maa ngi tudd El Hadji Bassirou Sow coordonnateur national mouvement des arabisants républicains mouvement boo xamante ne mouvement statutaire la ci parti bi d'abord euh, ñu ngi sant yàlla bu baax di euh, julli si yonent bi salaam di sant euh, président Doro gay mi nga xamante ne wax dëgg yàlla moo ñu accompagner ba ñu mën a def tey journée bu am solo bii tey fii ñuy wax ak fii ci CICES yàlla def na ne. jox nañu fi luy tolloog deux cent personnes appui bu jëm ci wàllu korité du ko nekk ku nekk korité day soxla woo ndimbal surtout ci jëm ci wàllu panier ménagère bi ak yu ci mel ci loolu lañ doon participer ñaareel bi def nañ ci aussi conférence euh, sur la paix stabilité xam nañu aussi réew mi da ko soxla loolu moo waraloon ndaje bi fay d'abord di féliciter Doro bu baax ni ma ko waxee tànk sànq nit koo xamante la ah doo ko gis ci benn image doo ko gis ci benn photo mais turam mu ngi partout loolu nag li ko waral mooy li ngeen gis fii nii mooy social bi nga xamante ne mu ngi koy def partout donc loolu mooy waral ñu daje fi ñaareel bi ñu daje fi muy remobiliser groupe bi maanaam tey fi ngeen gis nii y a 200 personnes yu fi ne yoo xam ne ay responsable lañu te ci une semaine lañ ko programmé donc euh, pour séddale lii nii te 200 personnes yooyu ku nekk bu indi woon 30 personnes rek wala 300 personnes 30 personnes loolu 9000 personnes la kon donc ñu ngi lance un appel son excellence le président Macky Sall nañu bàyyi xel ci élection législative yi di ñëw parce que ah ñun arabisants yi am nañu représentativité bu mag au niveau national ku ñëw fii tey gis na ne gis nga fi ay te gis nañu am na ay communes yoo xamante ne wax dëgg yàlla mun naa jël euh, exemple commune bu mel ni Fann Point am na ñaari directeur général am nañu ministre huit mille voix lañ leen laaj ñaar ñooñu ñetti responsable mënuñu sax am trois mille voix te alors que président jox leen ay ndombo yu tànk yu toll noonu ñun arabisants yi joxuñu ñu benn responsabilité alors que ñun mun nañ teg ci euh, taabal bi dix mille électeurs donc loolu aussi insisti la boo xam ne war nañ ko corriger beneen bi gis na aussi son excellence le président Macky Sall lu mu def lu baax di recevoir yenn maires yi nga xamante ne dañu gagné boo xoolee seen électoralu commune ñenn ñi ay trois mille cinq cent la ñenn ay deux mille te alal ko arabisant yi rek man personnellement mun nañu teg ci taabal bi li mu néew néew néew néew vingt mille électeurs au niveau national moo tax ñu ne euh, incha allah le trente mais soxla nañu mobiliser lu mu néew néew cinq mille arabisant fii ci Dakar pour aussi jéem a xool élection locale yi ñu jëm naka lañ ciy jàppale président Macky Sall mais beneen bi ma ci bëggoon a wax mooy wax président na bàyyiwaat xel arabisant yi ñun ay njabootam lañu 2009 ñun ak moom 2012 ñun ak moom 2013 ñu nag moom 2014 ñun ak moom 2017 ñun ak moom 2019 ñun ak moom 2022 bii man candidat la woon ci élection locale yi donc ba terewul dellu si waat ñu kër gi nañu bàyyi xel xam ne ñun suñuy morom lañ fi nekkal 2009 ñun ak Barthélemy Dias moo fi nekkoon mu choisir euh, Tanor euh, ñun ak euh, Yankuba Diatara ñoo fi nekkoon mu choisir Idrissa Seck ñun ak Serigne Mbaye Samboulaye ñoo fi nekkoon mu choisir Khalifa sal ñun ñu choisir Macky Sall ana Barthélémy Dias maire de Dakar ana Yankouba Diatara ministre de la République ana Serigne mbay Laye Samb maire de Yoff ñun alors que lan lañ président yooyu aussi da ko war a xool mën na responsabiliser ndawam yi bàyyiwaat ñu xel mu ngi koy def gaa mais ñun arabisaay bu nañ ko sentir parce que am nañu def projet yoo xamante ne ñun jàpp nañ la bu ko président accompagner mun na ci jëriñ arabisan yi mun na ci am emploi mun naa cee citer ay projets yu baree bare bi ci jiitu mooy festival yaa salaam bii di Youssou Ndour di xalamoo suñuy projet la projet jeune u APR la en 2012 bi mu nekkee ministre de la culture ñu ngi ñaan président Macky Sall mu wax ak moom mu delloo projet bi ministre de la culture au moins projet bi dana mën a employé lu mu new néew néew néew 1500 arabisans donc mu bañ koo jël def ko mbiru privé loolu ñu ngi koy ñaan président même bu dee président da koy jëndaat ñaareel bi fonds d'appui et de développement de daara bi nga xamante ne pendant deux ans ñu ngi koy jooy di ko jooytu fu ne président xool nu mu rencontré arabisants yi ngir loolu ñu mettre ko en place beneen bi initiative yi mu fi jëloon ak directive yi mu ci jëloon jëmale ko ci euh, li jëm ci wàllu diplômé en arabe yi depuis mu joxee directive yooyu ba léegi gis nañu ne affaire yi vraiment dafa teg tembe mais ministres yi ñoom ñoo deful seen liggéey mais président moom li mu waroon a def def na ko en tout cas loolu la ñu bëggoon ci yokk mais di ko sant nag bu baax di ko wax le ñu ngi koy déglu di déclarer fi ñun suñu candidat à la candidature pour les arabisans aux élections législatives yii di ñëw incha allah bëgg nañ fa teewal arabisans yi président bàyyi ko xel bu baax a baax a baax loolu daal moo nekkoon kaddu yi bu amul euh, ay question ñu sant ñëpp ñu fi teew di wax ne daal sant nañu ñëpp sant nañ leen yéen press bi sant nañu Doro Gaye encore une fois ci taxawaay bi sant nañu directeur euh, nu ñu ko waxee Salif Keita ci disponibilité ki ak jàpp bi mu ci jàpp sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous incha le 30 avril avec mobilisation 5000 enseignants arabes au niveau national incha allah. Euh, man maa ngi tudd Mamadou Ndiaye vice coordonnateur plateforme Xippil Xool teewal fii le coordonnateur Dora Gaye euh, coordonnateur national de la plateforme Xippil Xool. tey euh, tey dañu ñëwoon fii ànd ak les arabisans républicains te Oustaz nekk seen coordinateur ndax ñun. ci plateforme bi ñu yor dañoo xool organisation yi nga xamante ne dañuy liggéeyal le président Macky Sall lépp lu ñu jug di ko defal askan bi ngir jàppale le président Macky Sall euh, Doro Gaye le coordonnateur de la plateforme Xeppil Xool da ciy ànd ak ñoom jàppale leen ci ba mu nekk réussite euh, ndax moom comme ni mu koy faral di waxee rek euh, ñun ñëpp dañoo war a jàppale le président Macky Sall moo tax bi koor gi ñëwee ñu accompagner les organisations yi nga xamante ne bootu nañ ci le président Macky Sall pour def social euh, gis nañ ne accompagner nañ waa Cap la banlieue accompagner nañ les jeunes femmes leaders accompagner nañ les jeunes Benno Bokk Yaakaar du département de bambay accompagner nañ le mouvement des élèves étudiants républicains tey ñi ngi ñëw accompagner les arabisans républicains loolu nag Euh, ci politique sociale bi nga xamante ne la plateforme dañ ko yàgg di def moom lañ continuer di ko def ba ci biir euh, Ramadan bi ñu ànd ak oustaz organiser li nga xamante ne mooy conférence sur la paix et la stabilité dans le pays ndax ñun ñëpp vraiment war nañ mën a jug dox li nga xamante ne mooy jàmm kon conférence bu mel noonu suñ ci woowee la plateforme Xëppil Xool te mu jub te mu jug ngir jàmm ci réew mi je pense que kenn du ñu ci jiitu moo tax le coordonnateur Doro gay am ci taxawaay bu am solo euh, vraiment génne les moyens qu'il faut accompagner les arabisans républicains pour que objectif bi ñu ci am ñu mën koo réussir. Hmm. aussi comme ni ko waxee Doro Gaye souvent lu yu mel nii dugal loo xam lu bëri doo ko gis fenn lan mooy waaw je pense que nit kuy def te yàlla tax la je pense que sooy def te yàlla tax euh, aajowul ngay wanewu ndax euh, ñu bari dégg nañ ko fu ne. ba ci bërki démb rek gis nañ ne waa Casamance ñëpp a ngi koy sant ak a gërëm ndax fa guerre ba am rébellion ba am fa population ba sonn moom dafaa yebal ndimbal mais ñoom seen jëmmi bopp ñoom ñoo ne lii kat dañ koy génn wax ko ndax kii fim ñu fekk jàppale ñu te yàlla rek tax jàppale ñu ngir jàppale le président Macky Sall ñun ñëpp dañ koy wax ba tax ka fa nekk sax directeur de l'action sociale félicité ko ñi nga xamante ne aussi ñooy kilifa diine yi nekk Casamance ñooy imaam yi nekk Casamance te Serigne Moustapha Mboup di ci liggéey ak ñoom ñoom ñëpp ñu taxaw rafetluwaay rafetlu taxawaay boobu mu am ci Casamance waaye yemalewu ko rek Casamance gis nañ ko ni mu taxawee Pikine gis nañ ko ni mu taxawee bambay gis nañ ko ni mu taxawee Kaolack ak feneen ak feneen feneen ci Sénégal ndax objectif am mooy que fépp fu ñu war a dem avec la plateforme Xippil Xool jàppale askan bi jàppale responsable ya fa nekk ñu def ko pour que ëllëg président mën a am dam réew mi mën a am jàmm ñëpp mën a dund ci solidarité